الحمد لله wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seen mbokk docteur Abou Anas Guèye di tradipraticien di nuyu sabar planétaire ak soppe yépp di soxna mareetu ak képp koo xam ne yaa ngi participer ci sabar planétaire rubrique bi nag mooy les secrets et vertus des aliments mooy Euh, njariñ yi nga xam ni am na ci li ñuy dundee te xam ngeen nit ci li muy dundee rek moom mooy garab gi koy faj euh, tey nag ñu tànn ci euh, lii nga xam ni moom mooy laaj bi nga xam ni soxna Maritu macha allah def ko ci togg bi mu am solo lool ak jinjeer ak li nga xam ni moom mooy laurier mbokk yi lii di laaj nga xam ni def na ko ci togg bi am solo lool te bëri ay laaj dépuratif la antioxydant la déparasitant la germinatif la euh, antibiotique la anti cancer la anti coagulant la anti cholestérol la euh, laaj nag dafay segg direct boole ceeg boo koy jëfandikoo dalay aar ci feebar yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu cancer ak feebaru xol booleeg laaj baax na lool ci ñi nga xam ne ñu amee jafe-jafe ci wàllu digestion wàllu reesal boole ceeg laaj bokk na ci ay njëriñam it antibiotique la eh, moom boo koy jëfandikoo dafay renforcer sa système immunitaire maanaam yi nga xam dafay dimbali sa yi xeex ak yi nga xam soldat yi nga xam ñoo nekk ci sa yaram di xeex ak feebar da leen di renforcer jox leen doole kon gis ngeen laaj am na ay njëriñ lool. li ci nekk ci ay njëriñ kenn xam mu toll bokk doy na ci rek laaj dafay segg deret bu ñu jëmee ci li nga xam ne nag moom moom mooy eh, jinjeer xam ngeen jinjeer dafa bari ay njëriñ trop. jinjeer nag moog laaj soriwuñu xam ngeen jinjeer moom ak antioxydant bu am cardiovasculaire muy du am feebaru cardiaque beneen bi mooy dafay dimbali kii ci mu régler tension bokk na ci gën am solo mooy laaj day tax nit ki mu digérer day tax bu lekkee mu gaaw a rees euh, bokk na ci ay njariñam it laaj euh, soble ci euh, jinjeer ci boppam dafa bokk ci ay njariñ yi nga xam ne da ko mane lool mooy soo koy jëfandikoo doo am feebaru pulmonaire mooy feebaru poumon mooy feebaru noyyi boole ceeg dalay dimbali ba doo am feebaru seere kon ay njëriñam bari na lool takku na lool boole ceeg dafa efficace lool si li ñuy wax euh, feebar yi nga xam dafa aju ci wàllu bopp mooy système nerveux da ci efficace lool bu dee lii nga xam ne nag moom mooy euh, limon xam ngeen limon vitamine C la te xam ngeen vitamine C ak ay njëriñam mooy dafay dimbali nit ki ci wàllu fatiguement day dimbali nit ci moom appétit beneen bi mooy day dimbali doomu aadama bi ba luy raxas deretam da ko ciy dimbali bu baax a baax a baax waaw boole ceeg da koy jox appui solo lool waaw kon tey euh, euh, waa Saveurs Planétaires tey fii lañuy yam ak yéen di nuyu soxna Mareetu di leen jaajëfal yéen ñëpp euh, ba beneen yoon incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah